ñun societé civile organique ñun société civile organique ñoo ànd ak ku mel na Boubacar Seye nga xam ne ñëpp ràññee nañ ko ci Horizon Sans Frontières ku mel na askan nga xam ni man Biram Khoudialo ku mel na Malick Ndiaye jiite intellectuel Sénégal yi ku mel na euh, monsieur Ndoye mi ñëpp xam ko ci Sénégal ku mel na Serge nga xam ni c'est des hommes de valeur ku mel na professeur Kitane de Thiès ku mel na euh, yeneen syndicats yi am na ku nekk représentant bu mu am fii ñëpp mënuñu woon ñëw kon ñun ñoo tudd société civile organique dañu ñëw pour waxtaan ak sénégalais yi di commencé diisoo boo xam ni am na fu muy commencé mais amul fu muy yem parce que jàpp nañ ni ay intellectuel bu ñu nekkee ci dëkk dëkk ba nar a tàkk ñoom il de leur rôle ñu ñëw wax camp bi wax camp bee pour que ñëpp nekk ci jàmm lan moo xew amuñu droit nekk di këralewu actuellement que li xew mooy inondation yi mi ngi rey nit ñi benn ñaareel ba cherté de la vie bi inflation bi menthe fraîche sax yokku na Euh, xale yi amuñu xëy ba ñu ngi dugg ci gaal gi di dem guddeeg bëccëg suba ngoon waaw loolu bu amee est-ce que ñi ñu denk réew mi ak ñi nga xam ne dañu bëgg réew mi ñu taxaw di wax loolu et loolu uniquement di ko saafara mais au fond saafara amul li am mooy di xoqalante di di di wax ay wax yu nga xam ne day indi coow day indi pëccëxoo day indi confrontation te loolu réew pour mu dox loolu du am dañ ko war a dindi looloo tax tey gis ngeen suñu affice du affice bu méchant ñun waxuñu lu nga xam ni day taal réew wala dafay yàq réew li ñuy wax mooy luy indi jàmm ni ko sëñ Mountakha waxee ni ko monseigneur waxee ni ko roi bi Casamance waxee ni ko autorité traditionnelle yëpp waxee jàmm la ñuy wut. kon ñun bu ñu nekkee ay intellectuel war nañ taxaw waxtaan ak peuple bi eh, éveiller les consciences fexe ba nga xam ni jeunes yi dinañu am organisation parce que jeunes yi fi mu ne affalee nañu ba nga xam ni dañuy génn mais bu ñu génnee du ñu am organisation occasion bu ñu am dinañu génn. loolu nag bu ñu leen organiser wul mën na indi catastrophe il faut ñu conscientiser leen ñu xam ni kat ñoom dañu taxaw ngir actuellement réew kan moo ko yore xale donc xale yi bu ñu taxawul bu fekkee amuñu conscience kon réew mi dafay tàkk parce que mag ñi wéy nañu ba pare kon looloo tax ñu euh, société civile organique boobu juddu te dafa war a waxtaan ak syndicats yi ak toutes les force vives de la nation pour que réew mi mën a dox pour que ñu jóge ci xuloo ak xeex ak pëccëxoo Afrique dafa war a jóge foofu Sénégal dafa war a jóge foofu jeunes yi ils sont conscients te tey loolu bu ñu ko organiser wul du baax organisation boobu wax nga ko léegi mi ngi jaar ci éducation éducation est-ce que war waruñu ko changé est-ce que war nañu di former xale yi te duñu mën a liggéey waaw formation ak liggéey dafa war a nekk en corrélation bu loolu amul xale yi dañuy am problème guddeeg bëccëg suba ngoon bu ko defee dañuy am xol bu tàng. lu tuuti mën na taal Sénégal ñun loolu la ñu bëgg mu dañ kon bu ñu ñëwee ñu ngi dimbali gouvernement bu ñu ñëwee ñu ngi dimbali société civile ñu ngi dimbali sénégalais yi ñu ngi dimbali même parti politique yi donc loolu kenn waruñu ko mën a tere li xew mooy autorité universitaire yi ñëw nañu bundu xataal ñu ni ñu da di génn par force bu ko defee wala ñu utiliser renfort ñun nag kenn duñu xoqatal parce que li ñuy def pour Sénégal la donc li ma fi wax yëpp pour pour Sénégal am nañu autorisation professeur Malick Ndiaye moo ko toppatoo fii ñu nekk soci privé la restaurant la ci biir jabate restaurant jabate buñ la autorisé wul doo mën a yëg ci kaw kon buñ ñu fa fekkee di wax loolu kon tooñ la te tooñ yàlla bugg ko lii rek mooy taal réew bi. gis nañ ni yéen société civile ngeen te déglu ngeen euh, campagne bi euh, candidat bu nekk ak ni ñuy waxee violence tout ça yéen waa société bi nan apprécier campagne bi. campagne bi doy na waar programme bi wax nañ ko baax na waaye violence appel à la violence bi ñuy wax maanaam. président day tas assemblée nationale xam nga loolu boo ko waxee yaa ngi tàngal xolu ñi nga xam ne ñu ngi bëgg voter pour en changement am na wax yoo xam ne kilifa du ko wax kilifa dafay xam nu muy waxee te ñun suñu kilifa yi ni ñuy waxee day taal réew donc nañu bàyyi loolu on les appelle ñu ñëw dans la raison raison moo war a tax ñu wax wax bu dal xel wax bu dal wax boo xam ni dafay dellu si suñu cosaan nañu daan waxee muy fulla fayda fit jom ngor maandu dëgg yaru jub ak doylu loolu la ñu bëgg mu dellu si si xale yi parce que dafa réer ci mag ñi ba tax ñuy doxee nu nga xam ni véritablement kenn waru ko doxee kon tey bu ñu ñëwee di wax ak sénégalais yi bu ñu ñëwee fii université la temple du savoir la Malick Ndiaye ku ko xam-xam ko ci xam-xam ko ci maandu xam ko ci jub kon bu ñu jiitee lu mel nii ñu ñëw taxaw di ci wax kon sénégal yi la ñu bëgg yee les jeunes diplômés dañuy ñëw bokk ci lii bu ko defee ñu conscientiser ñeneen ñi les enseignants ñëpp. dañuy bokk ci lii bu ko bu defee ñu mën a def liggéey bu mucc ayib réew mi mën a dem ci kanam loolu la ñu soxal mais cohabitation mooy stabiliser réew ay la yewen faraluma kenn yàquma kenn waaye li ma bëgg a wax mooy cohabitation waaye moo mën a doxal réew bu fekkee nag sénégalais yi ñoo libre bu leen neexee ñu voté li fi nekkoon ñu continuer ñun suñu yoon nekk ci société civile lañu bul taal rek bu mu tàkk rek waaye li ma xalaat man ci sama bopp muy xalaat sama bopp maa ko xalaat mooy cohabitation du taal réew cohabitation dafay tax ki nga abal bët ni ko xoolal fii mu jël sa bët di xool fee boo jëlee sa bët jox ko keneen kon je crois que day am équilibre équilibre boobu man ci sama yaakaar dafay doxal réew waaye nag sénégalais yi ñoo am pour choisir bu ñu choisir ni cohabitation du am waaye baax na bu ñu choisir cohabitation day am waa baax na mais ñun dañ leen di conscientiser di leen wax li nga xam ne moo jëm ci lii indi stabilité ci réew ak développement